www.sangatv.com. maître El Hadj Diouf dañ koo dàq ci avocat yi nga xam ne ñoo waroon layal Macky Sall euh, euh, Khalifa Sall li tax ñu dàq ko ñu dem seeti El Hadj Diouf. leen ma dama ne may ma waaw dama ne est que man nuroo naa leen ku ñu war a dàq waaye man est-ce que man nuroo naa koo xam ne dañu war a dàq waaye dama ne ah. <laughs> waaye ay baalo la ñu ah. wala ma ne ñii ñooy baadoolo waaye léegi ñoom dàq nañ ma assemblée ma assemblée mu neex nooy ma bàyyi ñu ah, kon ko ñam nañ ko benn yoon nooy na neex na fu mu taxawti ñu dàq ko waaye kon man sax du ma kon man du ma saalum saalum man buur siin ku man ku ma xam dëgg ne man maa war a dàq waaye man kenn waruma dàq dama ne Macky Sall Macky Sall nag yaa ngi commencé déborder yaa ngi commencé wàcc yoon bi. waaw Macky Sall sama copain nga woon sama xarit nga woon waaye léegi sax doo ko am xol léegi. jàppatuma sax nga nekk sama xarit man bëggatuma nga nekk sama xarit. waaye may Khalifa ah. Sall ñoom bu ñu ma teree. ne man du ma ko plaider est que mu nañ tee sama laamin mun ñu ko dàq. mun nañ dàq sama jëm ay sama laamin bii. Eh, bii bu gudd bii bu kenn mu ko dàq. may la ma tuuti rek xam ñaar moo métti. mooy dañu yor ay rajo. yor seen ay ministre yoo xam ne fuuñ fañ na. ay ministre bañ a à la crème. ministre bañ a dugub. ñoo xam ne koo ne Macky balaa ñu tax ay ministre ay ministre yambar. ay ministre Balfourné ministre Beye à la crème ministre Pourri ñooñu ñoo xam ne boo ne Macky dafa ñaaw sax ñu ne lu tax nga ne Macky dafa ñaaw ñooñu laay waxal billaay walaay taalaay mun nañ ma dàq biir tur bi dama ne yóbbante jaww ak lépp fekkee moom moo yebal gars yi la ne El Hadj Diouf dañ ko daax. waaw eh, kon am nañ problème. ndax man buntu Rebeuss laay taxaw di plaider. man buntu Rebeuss taalaay laa man munu ñoo munu munu waay. munuñ ngeen ma yéen. mais est ce que man ngóor naa ko yor daax. déedéet waaye ñii ñooy baadoolo waaye. waaye ñii ñooy baadoolo. waaye ñu ay yambar fanaanoo ah. ñu ñu ci bëri nag guddi gi ah. seen jabar yi ah. ñoo ñoo leen di def looloo xam ne buñ leen waxoon suba teel lii loolu ko gëm seen jabar yi ñoo leen te jurgal leen waaye boo demee dàq laa jug kenn mu toroxal Macky na xam ne man du man dàq na ma assemblée nationale waaye du du Sénégal lañ ma mën a dàqee maa hmm. ko moom bii la sant yàlla ma ko jox mu gudd ritax saf xorom saf suukar muy dara dama ne Khalifa Sall mu neex leen mu naqare leen ñu ko ñu bëgg ko man avocat laa léegi nag ah. comme que dañ ma dàq ah. leneen a fay sama xaalis. dëgg la waaw Karim Wade man bokk naa ci noonu plaidé pour ñu ko. man bokk naa ci noonu plaidé affaire Karim Wade. waaw léegi nag comme Karim Wade nee nañu jot nañu xaalis Karim Wade léegi na nañ ma jox suma mooni par A ou par B dañ may jox sama mooni. dañ may jox sama gis nga ma jox sama mooni. waaw looy def. gis nga Macky ma jox sama mooni. ah noo koy def. du ma jàpp sa jabar. du ma jàpp kenn booy Amadou laa jàpp sa doom bi. Ah. Amadou xam nga Amadou boo na ko hëpp waaye laay naan nag jàpp jom sama waay. mën a waxal waxal. waaw waaw dëgg la waay. waxal waxal kenn mënu ci dara sa lamiñ yaa ko. waaw dëgg la waay. bilaay mënu ci dara sa lamiñ yaa ko. waay waay. waxal waxal kenn mënu ci dara sa lamiñ yaa ko. waay waay. waxal waxal kenn mënu ci dara sa lamiñ yaa ko. waay waay wax ma dee waay. waxal waxal kenn mënu ci dara sa lamiñ yaa ko. waay ay bojo bojo nag laa waay. dama ne gouvernement bojo bojo. Bukan nama, eh, bukan nama. Ayo, sekolah, sekolah. Bukan nama.